lii passé li muy réussir réussir dina indi luñ ko xajamal su boobaa nag beneen réplique ñëwaat affaire bi di gën a neex rek macha allah. d'accord alors ko léegi bu fekkee dañ ko jàpp loolu rumeur la man mun naa leen wax ne Bougane mi ngi ci jàmm parce que waxu fi dara loo xamante ne war na jar ñu jàpp ko bu doon daaw la nag dañ naan événement bi lacrymogène ñu ngi daaw kuñ na jàpp nañ ko doo ko werante mais loolu noonu bu fekkee ne moom en personne waxuñu ci moom am benn rumeur bu ñu sànni yéen ngeen koy véhiculer su boobaa moom day bokk ci coow li donc loolu tamit système la boo xamante ne moom da koy doxal wala ay ñooñam dañ koy doxal pour mu exister loolu stratégie bu baax la. Euh, man ku xam xamee ma AS Pikine te ay yeneen équipe ñi ngi fi ñàkk a euh, xam nga olof li mu koy waxee mooy. ñàkk a xañee ragal péete day euh, xañee wërsëg parce que lay moo sax da koy perdre ndax ambiance bi la wër nii loolu noonu nit ku nekk am na yéeg yëg xam lan moo bon organe bi nga xam ne yaa ngi fay liggéey nga xam ne dafa transparent ñëpp bokk ko xëy na foofu mën nga fa jéem a réguler mais boo génnee di dox sa soxla da nga war sa li nekk ci yow mu nekk lu logique ci yow nga xamante ne ëllëg ku ñëw fekk la ci loolu man sama téléphone bi xam lan laa ci nekkee di jël ay euh, yoo xam ne sama parti la di ko sànni ñeneen ñi nga xamante ne bokkuñu parti ñooñu tamit noon nañ may sànnee mais man tamit en personne su ma gisee lii damay kontaan lool te bu lay waxee dara képp ku bokk Pastef di cadre wala dara mus xaw ma ci ken Bassirou Diomaye Faye président de bi am naa numéro mais ba ma koy am xa fàtte naa sax lu tax ma am ko numéro euh, sama téléphone la nekk tey su ma defoon lii da ngeen di gis ba Bassirou Diomaye fay mais man ak moom xëy na relation li ñu boole woon ba ñu xamante xaw ma lan la mais jéem ma ko cee woo parce que damay jàpp ne tey jii beneen posture la xëy na nag mun na am dama ko soon invité wala mu bëggoon dara ci man mais man maa xool sama téléphone gis ci numéro ma xam ne xëy na amoon nañu relation mais relation boobu politique taxul man xaw ma kenn Pastef mais dama gëm projet bi nga xam ne moom la ñu véhiculé ma topp ci ànd ceeg ñoom di ci gis sama bopp. macha allah woon na wax ci wax ci wax ci wàllu produit mais tey on dirait que chaque fois sax ak ak say émission rajo boobu ah, doon wax ci affaire nga bàyyi lépp ñëw di ci wàllu produit. yow bi nga juddoo moo yàggul mais man ku ma xam xam ne lépp laay wax. bañ naa ko du ma def émission musicale rek man waaraate damay wax ak ñoom journaliste yi vingt heures su ma defee ak ñoom dara ba pare damay toog di waxtaan ak ñoom di dugg ci domaine yu nekk moo tax ma ne yow bi nga juddoo yàggul man ku xam-xam ne tous les domaines laay wax bañ naa ko ba léegi sax bu ma wax ne ma kolos tey da ngay ji ma ne non damay dem waaraate ji parce que bu événement football jotee dama ciy wax làmb bu jotee dama ciy wax lii politique ma ngi ciy boole deet du ma tudd kooku jomaay nee na waaw wala et cetera. très content de vous. ko moom euh, Kolos ñu gën koo xam ci Losco bi nekk foofu la ci RFM waa bi sëñ <laughs> bi xaaral maa ngi. waaw damaa waa damaa ñëwoon tey. nga añagul xanaa. non añ naa kay. yow mii kay niru googu ko ziar. alors tey euh, lan nga ñu mën a wax ci sa teewaay fii ci Dakar Arena. waaw suñu teewaay comme ni ko yàgg defee comme ni ko aussi ñu bëri xame mooy li nga xamante ne moo xew tey muy journée boo xam ne journée bu am solo la en tant que euh, jeune marabout comme ni ko yàgg di defee mooy jàppale. Euh, kenn si ñun laay wax ndax ñun xam ngeen ne yàgg nanoo euh, nekk ci réew mi di suivre li nga xamante ne mooy euh, politique bi waaye mosuñoo gis maanaam koo xam ne day ñëw pour jàppale ñi nga xamante ne mooy sëriñ daara yi te ñun yaakaar naa ne ku ñu xam-xam ne ay sëriñ daara lan mooy ñooy kuréel goo xam ne danoo yàgg xeexal yi nga xamante ne mooy ay doomi daara lan yow yaakaar naa xam nga ci dara ndax def nañ ay émission yu bari yoo xam ne yaakaar naa ne yàgg na ñaari at ci ginnaaw yoo xam ne def na ay émission yoo xam ne di ko jàppale moom ki nga xamante ne mooy Ousmane ko doon jàppale nag tey ji yàlla defal nañu ci ndam ndax waxee naan wala taqfu maa laysa laka bihi ilmun mooy nit lépp looy dugg leen da nga ciy am objectif bu Ousmane Sonko ñu xool ko gis programme bi nga xamante ne andi na ko rawatina programme bi nga xam dafa jëm ci njàngale diine loolu mooy li nga xamante ne moo ñu intéressé moo tax bi ñu gisee suñu bopp ci programme am bi nga xamante ne moo jëm ci wàllu diine danoo ñëw engagé wu comme ñi nga xamante ne ko ñoom ñoo ko mboolem chef religieux yi nga xamante ne nekk ci biir réew mi ñu ko defee mën naa ci lim ñu bëri lu ma leen mu dab wala aar euh, aar daara wala ñu bëree bëri ñoo xam ne tey ji ay sëriñ daara lan te bàyyi nañ seen lépp ñëw jàppale ki nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko rawatina man mi nga xamante ne damaa jiite mouvement bi nga xamante ne mooy aar ndongo daara ci biir réew mi kon tey ji Ousmane Sonko bu ñëwee indi programme boo xam ne dafay jàppale ñi nga xamante ne mooy dong daara jàppale sëñ daara yi kon yoon la ñu ñëw jàppale leen ci ñi nga xamante ne mooy ànd ak xaar leen monsieur le ministre wax ba pare. monsieur le ministre demal ba pare monsieur le ministre demal ba pare ba pare demal xaar leen xaar leen le ministre wax ba pare déglu ko. déglu monsieur le ministre déglu leen ko. <laughs> il va d'abord parler. monsieur le ministre va parler. waaye lii du guleet ci Pastef. ku xam Pastef ku ne. xam ne ni ko olof Ndiaye waxee. saa yu jinne aaye ku yéeg daanu ba tax na Ousmane Sonko woote na fii senegal yi ñëpp ñëw wuy si ko ñu ñëw teew lu déglu ko waajal waajal élection législative tey ngeen gis lu kenn mësut a gis ci Sénégal ñun ministre yi ak ñu ñuy waajal sax def député ñu bëri ay car rapide la ñu yégee wàcc kenn jëlul benn oto nguur di ko defee politique ay oto lañ jël dañoo wàcc fële dox si comme citoyen yëpp ñu nangu Ousmane Sonko wallum sécurité sax moo tax mu war a jël oto ba dugg si fii mais dina doon def ni xale yi defee ndax xale yi dañoo dox lu toll nu Tëngéej ba fii xale yi dox nañu tollu Kër Massar ba fii xale yi jël nañu ay moto di fabante xale yi yéeg nañ ay car rapide di ñëw pour ñëw contribuer ñun ay car la ñu yéegee sax en tant que ministre pour ñëw participer lii def ni ko Sénégalais yëpp defee bu subaa mu leer. incha allah lan moo waral xale yi ak ni mu mel cooli lu mu bëri yëpp fu Ousmane wootee ñu ñëw andi seen xaalis te daaw ñu ko gis. gis nga taxaw ji jël caméra di wax ñun Pastef dañ ciy dolli jëf Pastef dafa sax ci xol yi boo jëlee di saaga Ousmane Sonko te Ousmane Sonko dafa seey ci xolu xale yi yow da ngay da nga koy gën a xam rek da ngay gën a yokk mbëggeel bi rek loolu la xale yi wane. xale yi ñi leen di fippuuloo sax du Ousmane Sonko. ñi bëgg a faagaagal Ousmane ko di ko toroxal. ñooy tax xale yi di fippu di ko wane positivement nag ñun juddoowuñu pour gatsa gatsa dañoo juddowoon pour lii parce que dafa juddowoon pour tabax. dafa juddowoon pour liggéey dafa judoon pour don de soi gatsa gatsa dañu ko imposé woon gatsa gatsa amatul le vrai gatsa gatsa mooy tabax Sénégal. ku ko ku ko ku bëgg a tabax fekkuñu si. ku bëgg yàq ñu woon la ne ñun tabax moo ñu tax a jóg. du ñu éliminer kenn ñoom ñëpp dañuy bokk ñu jël leen sànni ci mbalit bu bu leen dajale leen sànni ci mbalit. honorable bu ñu xoolee politique um Sénégal ñu bëri daaw ñu xam maanaam financement fan la jógee parce que foote politique au tournant ndax tey le ministre de l' intérieur mënul poser après question si yeneen parti fan la ñu jëlee seen koppar. de toute façon parti bu ci nekk. waaw loi bi nee na 31 décembre na nga publier say finance say état financier nga jox ko ministre de l' intérieur. Mhm. li ñu def tey mooy jub jubal jubanti. Mhm. nga jël nguur ba pare loo xam ni kenn mus koo gis nga mën a dem tibb ci xaalisu état indi oto état kii ministre la dañ koo gis ay tànkam la doon doxee fii ba yegg mënoon nañoo indi oto at état indi ay moyen état mu ne leen ku nekk na nga jël ci li ngay gañe nga dugal ko ci ma woo sénégalais yi ñu continuer doon financer message bi président Ousmane Sonko lancé mooy man mi yore nguur di woo samay militant ñu financé ma mooy wane ni du ma financé kenn pour mu votel vote bi toujours dañ koy gëm rek. la te lii nekk ay rupture yoo xam ni mooy le début ñi si des bu yaboo ñu trouver yeneen moyen pour jëm ñoo topp mais ñun yoon bi ñu jël muy jub jubal jubanti day njëkk a feeñ ci waa Pastef te tey jafe naa ni ku ñëw fii ñi doon wax naan président bi xale yi bàyyi nañ ko président bi nit ñi découragé nañ ñoom bu ñu mënee le quart de ça rek buñ ko defee dina baax ci ñoom ñu ngi jëm nag ay élections législatives mu nekk événement bu am solo. ñu interpeller sénégalais ay nit mënuñoo jël seen xaalis luubal ko ba pare ni dañuy ñëw ci yéen ñii ñu sàcc seen alal ngeen utal leen mbalaanu kiiraay pour ñu bañ pour ñu mën a rëcc noose xaalis bi ñu sàcc ci ñun benn électeur warta jël kartam di ko jox ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñi nga xam ni bu leen bàyyee ñu contrôler assemblée mooy kenn mënu leen a juger ndax kilifa ministre haute cour de justice moo président haute cour de justice moo koy juger te haute cour ay député la du ay magistrat donc na population yi jël seen responsabilité jeexal période bu Macky sàll ak ñi ñu àndaloon système bi dafa desoon tuuti pour mu jeex définitivement mooy foog ñu balee leen ci espace politique bi balee leen nag dans les règles de l'art ci jàmm ak teranga nit ñi dem voté jox Pastef cent cinquante députés ñu bàyyi leen benn groupe parlementaire suñ motalul ñu jël suñuy nit motali leen pour ñu mën a feeñ ci assemblée loolu kese la ñuy woote ak jàmm ak. waaw waaw maa leen di fay waaw bàyyi leen ñu dem waaw dem leen dem leen naa léegi ah, man ñi ma àndal ñoom ñooy kilifay parti bi presque bu ñu waxee sax mën nañ ma yóbbaale géew waaye dafa fekk ni dañu am habitude fu ñu dajeeg yéen rek jàllale message message bi message bi benn message la ñu fexe ba nit ñi ni ñu ñëwee fanaan si ci arena bi le 17 bu jotee ñu dem fanaan yi ci bureau de vote nga xam ni élection yi balaa midi dinañ tàqalikook système bi fi nekk encore une fois moo bu diis la moom laa yàgg di wax tama man loolu laa gëm ñi ñu ko seqal bëgguñu Sénégal ay bandi lañ baat bu diis la mais mooy dëkk gis nañ bandi bu mel ni Bougane muy def trouble à l'ordre public foo xam ni président de la république sénégalais yi tànn ko fal ko mu dem fa mastawu leen premier ministre annoncé ko ne jët na huit milliards pour yóbbu fa sénégalais yi gëm réew mi yëpp ànd ak ñoom di ko naqarlu la leen dal président jiitu ci président moom mu xëy tey ñu ànd ni dañu fay dem pour def trouble à l'ordre loolu nag man en tant que imam maay wax man yoruma responsabilité état mais réew mi xam naa ko képp ku ni du ma topp diw fa ngeen jëm moo soriwul loolu damay lancer un appel solennel ministre de li Amadou Ba wax tëj na wax ji ñun imposé wuñ gat sa gat sa ñun dañoo fekk suñuy néeg di ñu toroxal di ñu jiiñ kompaloo réew mi ànd ak ñun ñu résister ba li am am waaye fekk nit ku ñu fal ci juróom benn weer ña faloon toog di xool foo jëm nga ni da ngay créer li ñuy tuddee trouble à l'ordre ci réew mi loolu ministre de l'intérieur waru nangu te képp kuy ab sénégalais te responsable la waroo ko nangu loolu message laa doon wax di nuyu bu baax sénégalais yi di leen wax ni nañ taxaw temm pour le 17 balaa midi combat bi jeex incha allah. baax a baax